na am li ñuy tuddee équilibrité waaye justice na am li ñuy tuddee moom boppam ba ñépp yem su baadoo tooñee ñu teg ko tooñ su buur tooñee wala ku ànd ak buur ñu teg ko tooñ li Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu njëkkoon wax ci xutbaam bi ñu bëri tiitee ci njiiteem mu ne ne ah déedéet jarul tiit gis nga suma jiitee ñu ne ah man ci kanam la ma leen di wax ñu ne ah mu ne képp koo xam ni ki la ëpp doole ci nguur tooñ na la danaa teg sama tànk ci loosam ba nangu tooñ bi delloo la ko yow baadoo la yow baadoo la bi koo tooñit sa sa kaw ba nangu bi ko bi umar fan la mujj umar dafa mujj fu ko neex mu tëdd amatul garde corps amatul garde rapproché amatul dara amatul pale amul dara Umar bëccëg bi day dox fu ne lay dugg su gëmmentoo fu ko neex mu tëdd lan moo tax parce que teg na mbir mi ci yoon gis nga bis bu justice amee ci am réew mooy ñépp dañuy am jàmm dana dem ba ñu ànd ak yow ñu def lu leen neex waaye bu ñàkk maandu amee ba su mbaadoo la defee ñu tëj ko kaso su sàccee ginaar ñu tëj ko kaso ki ànd ak yow na ay milliards kenn du ko laal loolu day génn nit ñi ci gore dañuy mujj ak goree di ku bëgg a def musiba day ndaw ñëw ànd ak yow ndax xam na ni képp ku ànd ak président lu ko neex def mbokk yi loolu mooy indi jafe-jafe ci Afrique mboolem soi-disant triant yi ñi bon ñépp te ñeme yàlla dañuy dem ci mouvance présidence nekk foofu mën di màtti nit ñi di satch alalu the mi di duma nit ñi di nangu toli jamburi di nangu keuru jamburi so ah lool nak fu muy justice bu am deux poids deux mesures moy nit ñi ñu équilibré su nit ñi équilibré wul yow président diriger. doo mën a diriger lan moo tax parce que ñépp xam nañ ni da ngaa jeng sa jeng mooy da nga ànd ak ñi ànd ak yow jël ñu ci des bàyyi leen mbokk yi tooñ dafay yàq am réew توني دفاي تسارع امريو برم تعالى وتبارك وحنا حديث القدسي لاني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يالا ني مان ميلن بند موم لين يلف لين دما ارامل توني سما بوب مان يالا دوما توني وما ربك بظلام

su ko defee commandant dootul tooñ général dootul tooñ sergent dootul tooñ policier dootul tooñ civil dootul tooñ ñëpp dañuy ànd maandu day dem ba policier bi xam na ne bu jawul ci yoon dañ koy teg ci yoon xolle ma lii mbokk yi ñi ko appliqué ci Europe te du ay dëkk jullit tey ñu ngi ci jàmm tey Europe policier ñemewu la tooñ Europe ab ministre ñemewu fa li xew ci Afrique Europe député ñemewu fa li xew ci Afrique tey jii Macron dina jiite ba daanu su paree bu ñu xoolee alalam yàlla xam na ne du mat un milliard. du ko mat ñun suñu président yi ku toog rek nekk multimilliardaire milliardaire africain yépp ay président la ñu ci ëpp dem na ba am alal yoo xam ne sax xamuñu ko di sàcc di yóbbu ci dëkku jàmbur yi di dénk tubaab yi man dama dem ba jàgg dama yéemu ci yàlla alal bi ngeen di dajale ministre yi député yi alal boobu lu ngeen di def ak moom yowmal qiyaam bis bu ñu ko yëkkatee ne ko cëpp teg ko sa kanam ne ko cëpp teg ko sa kanam nan ngay def ndax nekkon ministre jaron nok, nak ndax nekkon député nok. nako jël alal di blanchisse d'argent mbolo mi yep nek ci problème parce que yow da nga and ak nguur mané ni mandu maandu motax afrique nek ci jafe-jafe mouvance bobu nak nga xamantene ne dem na ba aduna bi yep gis ko motax tax bi yep afrique jël afrique def ko seeni tol jël doomu africain di len napaje jël seeni alal di ko yobbu seeni phosphate seeni pétrole seeni gaz seeni alal tey moom la tubaab yi jël mbokk yi xool leen France France amul benn toq pétrole dëkkam amu ko benn toq gaz France amu ko te tey réserve gazière am ak réserve pétrole am kenn xamul nu mu toll kon fan la ko France jëlee. ci ay guinée sénégal yoy lu koy jëlé jël leen def leen ay jaam ba paré nak ñu yor ay njiitu yu rew yo xamanteni ñoo la ñuy déglu loolu li gëna grave mbokk yi moy da ngay tok ci bato jama di wan përëm loolu musibe la mbokk yi tok ci bato jama di wan përëm afrique rek la am afrique ñu ngi tok ci pétrole wallahi suñu rew mi est ce que sax fi ñu tok ci jumaaji suuf ci nekkul pétrole lépp di alal bu dul jeex bu ñu estimé woon Sénégal li fi ne ci alal moo Guinée kenn xamul nu mu toll ci àdduna bi même Arabie Saoudite Sénégal ko ëpp alal wallahi ladi laa ilaha gayru li nekk suufu Sénégal nekkul Arabie Saoudite mais ba léegi doomu Afrique cent ngi nii mënuñ koo jëriñoo mais ba kañ loolu mooy indi frustration mbokk yi war na bépp njiitu réew mbokk yi muy sàmm ña mu jiite di xol seeni bëgg-bëgg ndax ñoko tan té mu goré nak ñu jital ko lu ko moy ci réccu rek lay mujj réccu rek lay mujj blaise compaoré barki demb yeen ñëpp gis ngeen ko muy balu ak ñan lay balu ak fami thomas sankara bokk yi li li lii lan la man dama tok dama tok ba tag dama tok ma deglu affaire ma tok sama yaram di daw xola ay tubab nakhla ba nga ray sa xaritu ben bakkan ngir rek nguur nga toog ci nguur ba ñu dàq la nga daw tey amatoo dara nga mujj doog a taxaw nag ne maa ngi baalu ndax man maa rayoon Thomas Sankara yëfu ñàkk fayda yi Afrique rek nga koy fekk dangay dem ba càng ne africains yi lan la ñu mujj nekk lan lañ mbokk yi subhanallah ay traître ñoo ci ëpp waliyaadu billah donte bi ñëpp mbokk yi kon saa bu demee ba nit ñi jiital alal mooy àdduna yàqu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة يرنتبي صلى الله عليه وسلم في حديث بوير نينا كيب كيال جيتل تي أمريو دينكلا نغا جيتا بيرجولني ولا نغا جيتا أم سمريو nga depp len ginnaw do wax ak ñom do len doo xam seeni soxla dundoo leen sax yow ci li nga nekk rek nga nekk sa population bu ñuy dee sa yoon nekku ci suñ leen di rey sa yoon nekku ci suñuy torox sa yoon nekku ci comme xës nañ la ba jiital yow nga jël sa réew jox leen ginnaaw jox yeneen réew kanam saa veut moom mooy war nga sa réew ñu bëri ci président africain yi dañu leen a fal ba pare ñu wëlbati ko jàkkaarloog France di raamal France bàyyi seeni dëkk li tubaab yi bëgg loola la ñuy def bàyyi seen dëkk wala iyaadu billah loolu war gënu koo rëy njiital réew bu nekk war na ko moytu yonent bi nee na képp ku yàlla jiital nga jox sa réew gannaaw sànni leen ne leen maa tey yàlla dana dox sa diggante ak say soxla ni nga def la la yàlla di def mbokk yi <coughs> war na ci njiital réew mu bàyyi jiital bànneexu bakkan d'abord bu dul dara jullit nga wala boo dul jullit am na loo doon ci wàllu diine kon nanga moytu li ñuy tuddee ethnicisme ki diriger am réew xeet yu bari dajaloo fa ñu tànn la baal wàllu ethnie ethnicisme day yàq am réew mënoo jiite nekk séeréer jël séeréer yépp jox leen bàyyi tukulóor yi bàyyi pël yi bàyyi njaago yi su yàggee tukulóor yi pël yi njaago yi noonu lañ lay def munoo jiite réew nekk njaago ne njaago yi rek laay fal ministre boo tourné rek mu sant mu sant sant njaago député boo woo mu sant sant njaago bu yàggee beneen sant bu dul njaago day jàpp ne njaago yi nga fi nekkal loolu mooy indi xëccoo boo xam ne mën naa dem ba indi soulèvement populaire mën naa dem ba indi xeex boo xamante ni harbu ahliya lay doon te ñan ñoo koy def mooy njiital réew yi conscient wul ànd ñu ak seenam xel beneen bi mooy nañu jiital ragal nga xam ne yow mi jiite réew ni ñu la falee booy fal noonu nga war a falee bul fal nit mukk ngir ñoo bokk askan bul fal nit ngir ñoo bokkoon jàngandoo bul fal nit ngir ni dafa ànd ci sama parti bul fal nit ngir ni nàngam mais da ngay def comme li tubaab di wax rek les hommes qu'il faut à la place qu'il gis nga boo bëggee diriger mu jaar yoon da ngay jël ñi mën nga teg leen ak ku mu mënti doon même bu doon sa doom mënul da ngay jël ñi mën nga jox leen ndax loolu lañ la sant te dañu la koy laaj te balaa ngaa xam ne dañu la koy laaj waxuma sax àddu àllaaxira àdduna rek bu élection jotee rek da ngay tiit parce que da ngay xam ne nekkoo woon ci yoon moo tax dootoo nelaw saa bu élection jotee nit ñi danañ nelaw yow doo nelaw ndax da ngay bëgg a toogaat nit ñi nelaw duñu la fi teg yow dootoo am jàmm léegi sa population ñooy dox ci li leen neex yow dootoo mën a doxal li leen neex kon loolu ku nekk war na ko moytu waaye ñiy ànd ak président di ko wala bépp njiital réew ñooñu war nañoo ragal yàlla ci teg ko ci yoon woo xamante ne bu baax la loolu histoire jàngal nañu ko bépp njiit boo xamante ne teg na ay mbokkam ci wetam rek nguuram daa mujje daanu wala mu teg ay xaritam wala mu teg xeetam day daanu jële nañ ci alimam hakim من يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا من قلد عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين نينا كيب كو خمنتني جيتل نغا تي أب مبولو كو خمنتني سبكال رنغ كو جيتلي ورنغا يالله ñu ne ah mu ne war nga yonente bi war nga jullit yi la jiital te war baaxul mbokk yi kon bépp jiitim réew na moytu booy fal nga bañ a falee bakkan ndax ñi lay jàppale ñooy yow ñooy yow tey bépp mbir mu am ci njiit loxo président lañ koy teg ndax moom lañu tànn ne ko yaay jiite tànnal ñu ànd ak yow kon na leen tànn ci maandu nanga xam ne yow njiital réew àdduna yàggul munoo yilif ba yilif àdduna gis nga li nga yilif lu mu rëy rëy rëy li nga rawee nit ñi bariwut bu dee alal yaa ngi lekk yaa ngi naan nit ñaa ngi lekk ñu ngi naan da nga am am pale nit ñi am nañu fu ñu tëdd te wallahi am nañu fu ñu tëdd fu dàq sa pale donte sax borom néegu ñax la tëdd ci néegu ñaxam ubbi palanteer yi ngelaw di dugg picc di génn di dugg di génn yow ñemewoo ko yow yow ñemewoo njiital réew tëdd ubbi ay buntam ñemewu ko wallaahi ladi laa ilaha gayru moo tax kuy jël njiitam réew jiital ko teg ko sa kanam foog ni nangam nangam gàtt xel la ak ñàkk seetlu beneen bi mooy nit ñi ñoo lépp jàmm ñun fu ñu neex dugg fu ñu neex dem fu ñu neex takk fu ñu neex toog mënu ko amul benn njiital réew bu ko mën surtout nag bu jaarul ci yoon koo xam ne booy génn contingent ñoo lay topp lu ëpp cinquante mètres wala cent ay policier ay gendarme ay sapeur ay nangam doo am jàmm doo dox ci jàmm doo wax jàmm non sama jigéen bi loolu kon ku nekk na nga xam ni xëccoo am njiit wala nekk njiit bul def takaalu ba ala zaman bul jël sa àdduna nga jiital ko rek ngir wàllu alal képp ku yàlla nattoo njiiti réew wala yàlla nattoo la nga bëgg a jiite réew na nga ut ñu lay jege te ñu nekk ñu ragal yàlla na il ko wut conseil mok mbak ñoo mbak lu ci xes bu dugg dootul genn vous jël ku la neex mu lay conseil kep ku conseil rayal comme limu modèles dégg ci bi non c'est très grave dégg benn way bu président da wara non man Sénégal man ban dëkk la ñu nekk am fit réseaux sociaux yi ñëpp di dégg nga ni président daa war a rey ndax jiit dafa war a rey mais rey kenn waru ko def amul kenn ku am droit rey rey yàlla rek moo am droit bi wallahi lazi laa ilaha gayru kon boo nekkee président président war naa xam ne danga koy nax ndax digaloo ko lu baax digaloo ko lu gën beneen bi mbokk yi nañu moytu dugg ci alal يونت بننا ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار ننا امنا ньо خامني دا ني دغ سي علال تيبو سي لولن نيه جيل لولن نيه ньоญو نانيو خامني سفر مولين دي خار كيب كو خامتيني ديتورني nga علال جير nga لو مومول والله سفر مي لاي خار جيتال ريو مبوكي نا مويتو با ريلاسيون دغ ak société baaxul képp kuy jiite ab société jëlal bind bii ci muawiya radiallahu anhu muawiyatu bnu abi sufyaan nee na man sama digganteeg ñii ma jiite sama diggante ak nit ñi nee na bu ci kawar nekkoon wala cinkóor maanaam bu ñu delloon ñu nattale benn kawaru fas geenu fas ñu jël ci benn kawar mu Muawiya nee na ma téye ko population bi téye li ci des nee na wallaahi buum bi du dagg te xam nga geenu fas car bi ni mu yombee dagg wala ñu misaal ko ñu ne bu ñu jëloon benn wëñ population bi téye fenn ma téye fenn ñu koy xëccoo ñu ne ah, mën a du dagg ñu ne Muawiya lan moo tax du dagg mu ne parce que suñu xëccee damay yolomal loolu mooy njiital réew njiital réew bu ñor sa population bu ñu xëccoo génnal waxal ak ñoom neexal leen dalal leen su problème amee génnal waxal wool population bi rajo ak ñu ngi ci yow mankat maa ngi leen di jéggalu maa juum wala maa nàngam xam naa ni nàngam nàngam bu ko defee population bi ñëppay dal ñëppay dal parce que lan moo tax ki ñu jiite yëg nañ ñi yëg nañu yëg nañ ñi yëg nañu moo tax Muawiya nee na bis bu ñu xëccee rek man duma xëcc mais boo toogee fële nga yor koy xale bu population bi xëccee nga xëcc buum bi dagg su buum bi daggee dootuñ la gëm ku ànd ak yow dootuñ la gëm mooy yow boo waxee kenn du la déglu te li gën a grave mooy nekk président dem ba kenn dootul déglu sa kàddu parce que koo wax mu ne waxul pour sa réew waxul pour réewam mais loolu loolu musiba gënu koo rëy képp ku mu dal boo dee njiite réew échec nga sa mission fayir nga ci bis boo demee ba sa population du ñu la déglu du ñu déglu sa ministre du ñu déglu sa sa sa justice du ñu déglu sa procureur du ñu déglu say procureur général wallaahi état boobu nekk na en faillite lan moo tax mooy kenn xaaratul ci koo xam ni mën na la soulager légui yow da ngay jàpp ni yaay arté sa bopp mooy justice populaire moy am justice populaire bo amé ci réew réew mi day dag kenn ku nek légui yaay bëgg arté àtte sa bopp alaa rawati nak buñu démé ba fenn fenn ay njital réew diko def ñi ànd ak njital réew diko def justice diko def subhanallah mbokk jullit yi est-ce que seetlu ngeen fi fenn tollu ci réew mi wallahi sa day daw da ngay toog ba ci yàgg nga ne ñun ci ban réew nit ñi rusatuñu fenn politiciens yi ministres yi députés yi procureurs yi ñëpp <coughs> dem nañu ba banaliser fenn dem nañu ba jël fenn mu nekk politique te mbokk yi fenn gàcce la fenn bis bu nekkee ci seen politique dem ba ay dirigeant di ko def xaaral ni fen woowu day tuur ay bakkan fen wuy tuur bakkan mbokk yi musiba gënu koo rëy tey loolu ñu dal li ñu dal mooy tey dañuy dem ba mooy ut ay baat ngir rek sauvegarder say bien nit dina toll foo xam ne sauvegarder ay bien ngir bëgg a contrôler situation dana la jaral nga fen ba tuur ay bakkan lii xew ci suñu réew ñetti at yi terroriste nga diko deg fu ne te wallahi ladi laa ilaha ghayru ñi wax xam nañ ñu amut wala bu fi amé benn benn la tay buñu démé ba suñu état ñoy foyé le mot terrorisme baat bi nga xamni mom la aduna bi gëna ragal peine bi ñuy teg terroriste moy peine bi gëna grave pen bi gën a grave suñu demee ba suñuy njiit réew suñuy kilifay réew ñi war a indi réew mi jàmm ñoo tiital population bi ki nga xam ni yaa war a xëcc jàmm xëcc dal soo indee fitna sëñ bi borom kër bu nekkee ci biir këram njabooram ragal mu dem jàpp ngan di jaani ñàngoor sànni ci kër gi bëgg na këram am jàmm est-ce que bëgg na këram am jàmm bëggul këram am jàmm même état bu digne état bu digne bu xamee ni terroriste am na da koy topp parce que am na leen moyens am na moyens yu mu ko toppee ba jël ko ne ko tiib tee waaye terroriste ngay dégg dem ba xale yi ragalatuñu baatu terroriste lan ngay dégg rebelle dem ba xale yi ragataluñu baatu baatu rebelle dem ba nga dégg ay forces spéciales yoo xam ne dara contrôler situation rek moo tax ñu di ko wax loolu nag mooy dem ba nit ñi dootuñu ragal baat yooyu ay baat buñ ko bëree dégg nit ñi dootuñ ko ragal léegi lan lay mujj da nga xam ne ne nguur gi non dañuy fen rek dañuy wax pour régler seeni affaire mooy kenn dootu leen gëm saa bu amee nag bu yeboo ñu xam ne fitna am na foofu lu muy mujj mooy rey ay bakkan ñaata bakkan lañu ñu téye fi tëj ay nit rey leen jaay nit ay doole te wallahi ñi ko def xam nañ ni dañoo jaay ñii doole waaye la tax ñu rey leen teguwul ci dëgg lu dul ci bakkan rek la tege mbokk yi bakkan mel na ni tey jii bakkan mbóot léegi moo tax ne bakkanu doomu aadama mbokk yi fan lañ jëm fan lañu jëm mbokk yi fen fen mbokk yi baaxul yow mi may déglu wallahi li yées ci ab société mooy fen li yées ci ab société mooy kilifa buy fen billahi bu amee ci réew léeg-léeg nga dégg booy yi di fooyee benn baat loolu du xadis sax ay bu ñu fenee aras yëngu déedéet loolu ay wax kii la rek tiital nit ñi mais mbokk yi fen ci boppam moo baaxul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iyaakum wal kadiba iyaakum wal kadiba wa inna al kadiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa ma yazalu rajul يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب سبحان الله نين مويت لين فن اياكم والكذب غيس نغا فن داي ديف لو نيت لو بون تاي تاي غاي دون فو فن كات ساي ساي لا موتاخ بوكو ياري سا دوم بوليتيسيان نك جيل نانيو فن فن داغانال كو سولال كو بنين مبو non dama koy politique léegi da ngay fen mu leer la ni da ngay fen nga toog di fen wallahi ladi laa ilaha gayru moo ñu dal xam nga kilifa bu toog di wax mu leer ko ni day fen mooy amatoo personnalité kenn dootu la respecté ak ndombal tànk boo mën a yore lu mu toll moo tax mbokk yi fen dara gënu koo yées jullit dafa war a moytu fen góor jigéen mag ndaw yonent bi ne moytu fen fen day yóbbu nit ci caay-caay caay-caay safara lay jëmale nit yonent bi ne kaay leen ma wax leen ñu ne amoon nit du dañ di fen di fen ba ñu bind ko fa yàlla fenkat bi hatta yuktaba inda allahi kadab nit bu demee ba ci arasu yàlla ba lawhul mahfuz ñu bind fa ni diw mii fenkat la mooy mënatoo dem àjjana waylun yawma idin lil mukadibin mbokk yi nañu moytu di wax lu dul dëgg nañu moytu wax lu dul dëgg ba rey ci ay nit tëj ci ay nit lor ci ay nit làggil ci ay nit jël ci ay dund doomu aadama ci rek fen pour contrôler la situation fen pour diriger fen pour ne ca kanam loolu wala yaadu billaa yàlla na ci yàlla mu tax mbokk yi gudd na waaye suñu réew boo ciy wax boo deful ndànk day mel ni da ngay taxaf jëme côté waxoon naa ni conseil yi dañ koy def ci bépp jiital réew ak ci ñi ñuy jiite du jeex waaye xool leen yonent bi ñi mu formé ni ñu tool saxaaba yi ñu rusoon fen lañ kon mbokk yi maa ngi jeexale ci wax bi Umar ibnu Xattaab wax Umar nee nañ Abu Zar la ko wax ñii ne Umar mi ngi ko waxoon kenn ci saxaaba yi def ko ni ndax xam nga sama diggante ak ñi ma jiite atadri ma masali wa masalu haula sama diggante ak ñi ma jiite xam nga lan mooy sama misaal ak ñoom ñu naa ma dafa mel ni benn mbooloo buy tukki dajale seen alal dajale seen lépp dénk ko kenn ne ko teel ñu ko ku soxla nga jox ko lu ñu soxla nga boole ñu joxal ñu ko Umar nee na man noonu laa mel dangeen ma jiital jël seen alal jox ma kon fi ngeen ko soxla foofu rek laa koy def jamono boo jëlee li réew moom teg ko keneen mooy tas nga réew kon nag jiital réew yu Afrique ak yu àdduna bi ñépp ñoom ñoo bokk wax ji kenn ku nekk na bàyyi xel ni ay bakkan du ko fooyee réew du ko fooyee incha allah bind bii di ñëw nag ñu doog a ñëw ci ñu ñu jiite ñoom it ana lan mooy seen wàll ci nar wi kon ndénkaane yi mbokk yi dafa nekk ndénkaane yoo xamante ne tax si saluñ ko kenn dafa nekk lu ñu taamim lu am la yow mi comprendre nag bul toog fële di wax naan manhaju salaf comprendre nasiha bu personnel la ñuy tere bu ko nit ki waree def dañuy wax ne bu mu ko def ci kaw minbar nasiha bu personnel loolu dañuy tere yonent bi day tere ni koy defal njiital réew kenn du ko def ci kaw minbar kenn du ko def public nasiha boobu da nga koy bind wala nga dem ci moom suñ la terayee mbaa ñu def dara nga am shahada kon bu ñuy jaawale nasaaix yoo xamante ne taamim la du taxsis ndax suñu réew léeg-léeg ñu bëri duñu comprendre situation yi da ngay dégg ñu naan non kii ni mu def du manhaju salaf fekk ñoom ñoo war a jàngi lan mooy manhaju salaf haza wa sallallahu sallam ala nabina muhammad wa ali wa sahbi ajmain istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu ربكم alaykum midrara allahumma يرسل fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt qumu ila صلاة صلاتكم يغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم